ginnaaw bi nu ko fàttee niki manifestation yi amoon ñeel coowal aji Sarr ak Ousmane Sonko laasana ñu gën ko xam ci turu Lass daal di ko jébbal boromam niki sànq ci ngoon bi juróomi waxtu di jot ca janas yi nekk fii ci diwaan gu mbaaw mbooloo mu bari lool foo ko nattu wees na fa ab bariwaayam waaye itam ndaw ñi ëppoon ci lool ay xaritam ay jigéen ñaaleem ay ànd jàmmam ñëw daldi di gunge kile di laasana ci këram gu mujj foofee xol yi tooyoon nañu lool ay ndaw yu bari di yuuxu ñii di daanu sax ay jël ginnaaw bi nga xamante ni ndaw lii nekkoon dawalkatu moto daal dinaa dem ci coow li nga xam ne moo fi am fan yii yëpp mbooloo mi takku lool ñu daal di koy gunge ba jibal ko boromam moom mi la di laasana ci sëg yi nekk fii la ci diwaan gu Grand Mbao waaye na dem na bàyyi ay moromam ak ay ndawam tiis ak naqar fees lool ci seeni kanam koo ci xool gis ni am na lu ko metti lool ginnaaw deewuk ndaw lii seede yi lépp nekkoon benn ku baax ku yaru ku yëgoon ñëpp waaye itam ku amoon yëg-yëg ci ñi nga xamante ni ñoom la doon liggéeyalandoo laasana dem na bàyyi tiis ak naqar ci ak fameem waaye tamit ci ay moromam yim daan fawandool fii la ci diwaan gu Kër Mbay Fall bàyyi saaliyu Sarr Kër Mbay Fall Info 7 TV